asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi amaan mbégte taxawaat fii ci socialu Ramadan ci Touba ca kanam di daayira Nooru Daarayni ci njiitul Serigne Mourtada moom Serigne Abdoul Fatah moom Cheikh Mamadou Fadal Mbacké mi nga xam ne mooy dox ci ndigalul juram di Serigne Abibullahi ibnu Cheikh Mamadou Fadal ak mbooleem euh, euh, waa daayira Nooru Daarayni Touba ca kanam xam ngeen ne social socialu Ramadan Touba ca kanam ñaari weer a ngi nii seen wax jëpp mi ngi jëm ci lu dimbale jullit yi xettali taalibey Serigne Touba yi ci weeru koor yi ba seen koor ñu mën ko woor nañ ko bëgg loolu nag ci lañ toog ak koo xam ne bu ñu tuddee turam ñëpp danañ nangu ak njàmbaaram ci biir waar wi danañ nangu ak njàmbaaram ci biir liggéeyu dëkk bi waaye rawatina nag Touba ca kanam ñoom miin nañ ko bu baax a baax a baax social it miin na jëfam mu di euh, Serigne Seck euh, mi nga xam ne 3 euh, c 3 di jàmbaar yoo xam ne ba Touba ca kanam jóge ak léegi jéegu buñ jéggi rek ñoo ngi moom a ko ànd jéggi rawatin nag ci social mu am taxawaay bu am solo bu ci taxaw boo xam ne feddliwaat na ko tey jii yónnee fi 12 tonnes ñu teg 14 sac kon waat na ko ci socialu Ramadan kooku kat bëggut waa dëkk bi xiif kooku it bëggut sancaan yi di jooy naan koor gi gisuñu ci xéwal yi bu ñëpp defee ne moom lépp dana sotti moo tax ñu yëkkati kàddu yi cant ci kàddu Cheikh Mahamadou Mourtada moom Serigne Abdoul Fatah mu jaar ci Serigne Abibou jaar ci Serigne Abdoul Ahad Abibou jaar ci mbooleem membre yi Touba ci kanam bàgg ci Serigne Touba Cheikh Mahamadoul Mountakha mi nga xam ne moo ubbi woon bunt bi moo koy tëj man ci ñëpp nag ñu yëkkati kàddu yi cant di ko ko sant di ko ñaanal yàlla li mu joxe ren ji yàlla nay asakay li muy joxe bu déwénee sun borom fay ko ko ko ci ak yokk taraangaam dugal ko ci biir ñaanam googu moo xam ne wa ardahu ijhal arda risqin wa amaan wa rahmatin wa sahatin kulla awaan yàlla na ko sëñ Touba defal defal ko mboolem mbokk yi nga xam ne teg teg eh, jàpp nañ ci liggéey social Touba ci kanam ñi ngi santaat alaaji Sëriñ sek di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla taxawu yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na yàlla dooli xéewalam dooli suturaam bi barakat Cheikhul Khadim barkeb Cheikh Mahamadoul Mountakha wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.